lek natt bi de yàlla ne ah mu kon ah, test bi loola genné mu ne ko kon na jël régulation nañ ko redoublé moy ki don jang dem ba wara def sey xawma xaw mu redoublé jangul normal wala li li amul note yu baax ñu délé ko sey iblis moom itam ñi nga xamné dañ doon gorlu ñu natt leen japp leen iblis dañ leen di délo wat leen dem leen ngeen jël wat yalla du gedd waye bu fi ñen solo du ma sonn rek am ñoo xam ba léegi bu mu juddoo ba léegi bari na jaam yu rubul la de jaamoo yàlla ba góorgóorlu ba mu yàgg rek ndeysaan seen xale bu jigéen bi ñëw sees rek ñu juum ak xale bu jigéen bi ñu redoublé waan leen ku sangu géej ak sa xale bu jigéen yar ñaar ba ngut lew redoublé nga ku yëkkati cigarette di jox redoublé nga ku tëgg yéen bi ci gàmm gi ba gàmm ko jeex nga dem hôtel France ba jigéen redoublé nga ku wéet jigéen foon ko ruduble nga ku raay ween bu la lewu ruduble nga ah, waaw góor na la ñëpp toppandoo waay ah ku bàyyi alxuraan yàlla ji jàng français dong bu ba dee da ngaa ruduble jigéen bu mënta supporté wu ji ruduble nga góor bu ragal takk ñaareel